Euh, Farba doy na man maa ko njëkk a wax xam nga ñii dem nañ sax ba 2000 local di ñëw ñu doog wax doy na ñoom ñëpp xam nañ ne man 2018 laa wax doy na bi may wax doy na mooy dama gis ñu am projet Prodac boo xam ne am na 4000 emplois direct et indirect avec projet Prodac ñu financé ko industrie bi ñu toog nga xam ne man dama jàppoon ne population aañam dinañ toog ñoom ñu am ndaw yoo xam ne ci biir Agnam la toog. ma ne ci biir añam dañuy toog du liggéey ñu toog ñu jekki jékki procès boobu aborté te Farba mënu ma indil benn justification président de la République indil benn justification Mame Mbaye Niang mënu ma indil benn justification ñu tegaat ca président dafa bëgg autosuffisance en riz ñu ne nag autosuffisance en riz bu ñu ko bëggee il faut la da Fuuta dafa am fleuve am ndox am lépp commune bu ci nekk am na ay villages yoo xam dañ nekk ci daanumaaya bi biñ defee ñu entreprise TSE bu Cheikh Amar gagné machine yooyu ñu indi ko ci daanumaaya bi indi ko ci commune Agnam man maa ko réceptionné bi ma ko réceptionné ñu testé ko ak waa sayet benn machine baaxu ci chaque commune bu nekk euh, vingt 27 machine la commune bu nekk machine yi mu ngi ñu coûté 54 millions benn machine laa wax ba tey tàkku ci kon autosuffisance aar yi bu amulee échec total bi ñu am mu ngi dépendre ci société boo xam ne dañ ko joxoon ay machine mu indil ñu ko ñu yóbbu ko ci fële Sénégal bi testé ko benn machine pour ñu def ko ci bi ma ci déclaré ci Facebook a jël machine yi ko ci biir mais boo demee ba tey ancien mairie Agnam bi boo demee da ngay fekk machine yi ci biir dama jàpp ne bu ñu jëlee xaalisu Sénégal jox benn opérateur économique mu gagné ko ci àll bi pour yooyu baaxul maire ba fa nekk delloowu ko société ba ko nekkoon yaa nébuleuse entre le promoteur ak maire bi nekkoon ci diggante boobu defe naa wax naa ci waxaat naa ci moo tax depuis 2018 laa commencé di réclamer li am ñaareel ba ndaw Agnam yi nekk ay ndaw yoo xam ne dañ leen waroon a promouvoir dugal leen ci ay ay ñu seen cadre yi ñu liggéey far ba jéemu la réussir loolu xam nga ñan lay yóbbu ñu am photocopie carte d'identité légalisée lan lañ man yanu ay saaku port mbaa ñu raxas ay bool université benn cadre jeune cadre bu jàng ba pare bu ñu recruter ci Agnam boo xam ne mën na wax ne recruter nañ ko muy liggéey amal njariñ état du Sénégal amul cent mille francs la am par weer bu ñu ci fayee location quarante mille di jóge banlieue di fay trente mille francs par fin du mois am dara section wu mairie nag en tant que maire de la ville Farba il si commune Agnam en tant que maire la ma bëgg ñu xàmmee mooy nit ñi gis nañ projet ya fa nekk mooy président de la moo defal waa Agnam hôpital hôpital bi li ko indi il fallait que ñu am demande sociale bu ñu def ñu jël Boosaya chaque village ñu jël fa trois personnes man maa doon présider réunion yi ak yaayee Abdoul Kane boobu nekkagul ministre. ñu dajaloo ñu ne dëkk yëpp nañ dem ñu def benn programme ñu bind ko bind président de la République Macky Sall ne nañu defal ci diggante bi hôpital parce que cinquante cinq kilomètres la ñuy jóge pour évacuer malade dafa metti mu loolu moo tuddoon commission Bossé bu nekk ci biir bo ci biir Bossé ñu réunion ko ci commune yëpp def document présenté ko président de jox ko Farba mu yóbbu ko ñu président nangul ñu loolu indil ñu hôpital ci biir Agnam parce que boobu bëggoon nañ lépp lu ñu soxla ñu am ko ci ci biir Agnam ñuy jël benn da ngay dem dem gis Agnam mu rafet mais président de la République Macky moo doon defar tali bu jógee Ndioum jëm Ourossogui gi Agnam lay jaar man añam lay jaar mais boo jeexalee loolu demal ci Agnam nga xool marché Agnam ba dam mel un maire bu doon digne maire dem leen seen bopp ngeen filmel seen bopp marché bu Agnam Thioday nga xam ne mooy marché hebdomadaire bu Agnam ngeen xool marché bi nan la mel. li muy li muy mobiliser le président Farba il n'a jamais ah, mobilisé le président ak Farba nit ñi ànduñu ak moom gis nga commune Agnam man maa doon dama doon gérer comité électoral mais su ma paree su ma xoolee li Farba Ngom dépensé ci commune bi ci xaalis élection yi su ma paree xam nga man carte bu nekk ñaata la may coûter treize mille francs kon bu fekkee da nga am base politique bu solide boo xam ne. da nga ko liggéey nit ñi dañ laa bëgg da nga dem mais base bu ñu jënd moo fa nekk mais base politique boo xam ne dañ ko liggéey mu ñor nekk fa ba buy dem Agnam day jël dina jël euh, cinquante bis mais dina jël cinquante bis vingt cinq ñooy njëkk a dem benn bis bi ku toog ci place ku ne dina am cinquante mille francs booy dem dañ lay jox trente mille boo ñibbisee ba ñu jox la vingt mille francs jóge Dakar dem jëlal cinquante bis bis bu nekk nga calculer ko soixante dix places moo ci nekk soixante bis bu nekk ñu kenn place bu nekk ñu defal kenn ku mille francs nga jël bis bu nekk mu nekk sept cent mille aller retour loolu ñaata la ci mu jël deux cent pick up 4x4 bu nekk trente cinq mille francs bi di am cinq mille francs par jour muy quarante mille ñu ci def gasoil vingt mille francs par jour pick up di am cent mille francs booy xa ah, dinaa egg si ci lool di nga am dinga am dinga am di nga am cent mille francs booy dem mais di am cent mille francs booy dem léegi xaalis boobu nag kiy dépensé loolu ci xaalis est-ce que kooku mën ngaa dem nga ne baasu politique bi mu am aañam base boobu ndax dan ko dan ko base militantisme la mbala base boo xam ne assent de conscience la askan wi lañ jënd seeni baat far ba musul am benn mitin boo xam ne góor sol na tiset dem ci mitin bi te amul tiset bi ak juróomi téeméer amul benn jigéen bu mas a sol wax si te soloo ko ak juróomi su ko weddee na dem leen ngeen ne ko na woote benn mitinu politique boo xam ne du joxe ñaari dërëm kenn du ñëw ma ne kenn du ñëw local 2014 bi muy nekk maire man maa ko njëkk a proposé document yi mu ngi sama oto ndax booba dafa am lu tax ma proposé woon ko na nekk maire mooy mu ne ma du ma ko mën a doon li tax mu bañoon ko du ma ko mën a wax ci tour parce que affaire ethnie la ma ne ko ñun soxla wuñu loolu li ñu soxla mooy président de mooy président le la république yow géwalam nga te suy voyagé da ngay ànd ak moom dama bëggoon nga nekk maire Agnam pour nga gérer ñu ay coopération internationale ñu jël ville yi président di dem dëkk bu mu dem capitale bu mu wàcc su demee di seeti président ba yow nga dem seetal ñu maire de la ville bu capitale boobu ñu def coopération yoo xam ne dinañ mën a am ñu développé Agnam Agnam tali jaar na fa dem Agnam amul assainissement Agnam environnement ministre de l'environnement du ñëw Agnam parce que Farba amul vision ministre bi yor assainissement du ñëw Agnam parce que Farba amul benn ministre benn lenn rek fay ñëw mooy président de la bu ñëw di politique am nañ chance nag président mu ngi fay dem jaarale fa benn tali defar fa benn hôpital en demande sociale jamono bi codey di am problème mu ndox laa ndox far ba mu ngi bënn forage ci toolam bënn ko ci këram këram laa wax moom en pauvre personne population ma Matam ni ñu amee problème mu ndox far ba moom dafa bënn forage ci biir këram dama ne response région li ñu njëkk am mooy problème cohésion sociale la ñu am mooy responsable yu déggoo di liggéey ci seen biir ah benn dof bu jiitee benn gox ay dof ne moom topp ci ginnaawam gox ba du mës lijjantiku tout récemment gis ngeen ni ñuy demee ni suñu waree dem dem toog devant télévision yëpp dajale xaalis cotisé dem jox ko askan wi ñu dajale bu ñu paree wanaat leen ginnaaw mais boo jàllee commune Agnam bi nga xam ne Farba infilié na si président tuuti ba nga xam ne am nañ lampadaire génnal nga dem ci lañ ba xam ne di fekk lamp nga dem Daabie ba xam ne fa denk mais le coordonnateur du département boo leen demee ngeen vérifier seen bopp ngeen laaj ko bilan en tant que maire mu bàyyi li président de la République Macky Sall def ci commune bi mu wax moom lan la def ci commune réalisation bu mu def ci commune bi ba tey càngool yi jaar ci biir dëkk bi di jël ndox mi di ko dagg di daaneel kër yi ba léegi càngool yi mu ngi jaar foofu benn càngool dindi wuñ ko foofu Agnam ba tey amul benn infrastructure boo xam ne tali la bu ñu wëralee dëkk bi mu jaaw ci dëkk bi parce que Agnam oto yi dañuy jaar ci biir dëkk bi risque de accident moo fa am man bi ñuy defal tali bi dama ko proposé woon nañ ko jëlee ginnaaw góli mu am corniche kenn mënu fa dëkk ndaw yi nga xam ne dañu a am ay kër am tali boo xam dafay nekkaat corniche Mmh. maanaam procédure bi ñu tolloon ci projet Prodac bi maanaam pisciculture lañu amoon yéene jox ma ko mooy fi ñuy nappee jën man ma defaral leen ko ma waxtaan ci ak chef d'entreprise bi gagné woon marché bi ba nu juboo ci sous-traitant wu ci marché bi. réunion bi assisté nañ ko ñetti orateur moo fa am parce que far Farba fekkeewul réunion bi en direct la woon man la ak Mouma Dem ak la la troisième adjoint maire Souley Ba bi ñu paree man du problème mu projet Prodac bi gagné naa ko wala gagné ma li amoon solo mooy ñu def projet bi projet bu ñu buukalee financé ko la ba pare ñu ñëw BAD moo ko financé. bi ñu ñëwee ñu teg ko projet bi teg lépp ba pare ba ñu yaakaar ne ndaw yi fuuta yi jóge nañ ci jafe-jafe ñëw fii di am ay salaire yu cent mille francs di am jafe-jafe duñ mën a dimbali seen parents yi dañ jóge ci lool Agnam tey bu ñu ñu jekki-jekki xëy gis projet bi dematul. xa xa maanaam garab ya sax fa ñu woon def projet bi bu la neexee ñu jël say caméra ñu def garab ya sax garab ya laa wax àll ba ñu woon a def projet bi garab ya sax dagguñu ko ba tey xaalis bi xamuñu fu dugg maam mbay ñaa dellu wax ñu projet Prodac bu bu boo lan moo ko aborteel boo sayee lan moo ko président de la Sall dellu wax ñu projet Prodac bu boosee lan moo ko avotel te ñu ngi lancé appel président de la république Macky Sall na vérifier en TSE entreprise Cheikh Amar bi nga xam ne moo gagné woon machine pompe ndox yi nga xam ne ñoo waroon dem ci daanamaay bi su autosuffisance à riz amul ci Sénégal le principal responsable c'est Cheikh Amar nañ ko laaj nag Farba Ngom mi nga xam ne commune am Cheikh Amar indi woon na fa ay machine man maa ko réceptionné ah du keneen ñu teg ko ci sama buntu benn immeuble bu may tabax mu sonal ma ma fay ay nit 100000 francs ñu déplacé ma ko tegal ma ko ci buntu mairie bi li ñuy wax mooy bu jeunesse bi taxawee di déplorer añam doxul dañ bëgg far Farba Ngom dem toog di wayal Macky Sall di ko taggal mais ñu tànn ay ndaw yoo xam ne ay ndaw yu baax lañ ñu fal leen ñu yore commune bi ñu nga xam ne la fa war ci wàllu environnement war ko ci wàllu assainissement wa war ko ci wàllu xëyu ndaw ñi ak liy sécurité ak éducation ba ne ci dëkk ba ñu mën a fexe ba loolu am ca dëkk ba quoi mais soxlawuñ maire boo xam ne xaritu président nga rek bu boo toogee juróomi weer ñëw woo paay sa salaire ne séddale naa ko jumaay jël sa salaire wu député ne séddale naa ko dëkk yi dëkk bu nekk am 500000 francs 350000 nga ne étudiants yi nekk université laa koy jox quoi boo paree tëjaat mairie bi dem sa yoon. Farba amul benn jour bu muy toog di wate budget wala muy def dara. am maanaam conseil municipal amul conseil conseil municipal xam nga lu ñuy wuti conseil municipal ñu dem bu Farba wootee réunion bu ñibbi kenn ku ne dina am 50000 francs bu ñu demee ne ko Seydi Ngom Seydi Ngom ñu defar ñoom. dañoo ci woowu nag euh, coowal pétrole hmm. nga doon ku ko jege. Hmm. Euh, xam nga coowal coowal bi amoon Séné euh, coowal pétrole bi amoon ba amoon Sénégal. Hmm. am na ci loo xam ne ñoom boo gisee président de la République man ma ne ko président ndaw yi Macky ndaw Sénégal dañ la yaakaar erreur bi Ablaye Wade defoon bëgguñu ñun alliance pour la république mu dal ñu. bi ñuy wax ak sénégalais yi dañ leen wax ne nanu fal danañ fi dindi xëccoo ñetti mandat ñaari mandat la def ku fi ñëw dem. soo gisee attaché wu ci premier troisième mandat bi mënuñu ci wax lu leer pour lëndamaay bi ne ci pétrole boobu moo tax troisième mandat boobu mun mun mun lu am. ma ma ma wax la ne pétro pétrole boobu amoon Sénégal Farba ngoom bu setoon du attaché wu ci président de la République mu mu mu ñu ñu ba président ba ñu quitté quitté au pouvoir yemuñu laa wax ñoom si si si loxol par na président de la République woo nag woo CREI ñu enquête Farba ngoom laaj Farba ngoom ban société la am ci Sénégal. ak ban patrimoine la Farba Ngom am Sénégal ak avant 2012 lan la Farba Ngom amoon Sénégal ba Farba Ngom mën a toog di foowee ay milliards ñu koy jàpp ci aéroport ak xaalis muy génnee alal judul jeex di loué ay bis di ko dem ne yóbbu ci askan bi nañu président de la République wax Macky Sall yan société ak yan revenu la Farba ngoom am ci Sénégal ba mën a am ba am am ci lool li nga xam ne mu ngi doon ñëw ci commune Agnam nag li nga xam ne mu ngi doon ñëw ci kanamu Agnam nee naa ko nag man saa yu la neexee yónnee ma citation directe lépp loo xam ne yónnee nga ma ko maag yow ñu taxaw ci kanamu tribunal j'ai tous les preuves parce que xam nañ ne lépp man maa ko doon réceptionné man Farba en tant que personne du sama noonu waaye nag damaa yërëm ndawu cadre yi nga xam ne ñoo nekk ci région de Matam ñu war leen jàppale ba ñu liggéey tey ñu xëy rek dañu indil ay raxaskatu bool université ay yanukatu bool ay gardekat ñun soxal nañ jeune cadre yi nga xam ne dañ jàng am université ñi am bac plus 4 ñi am bac plus 6 ñu restauré leen fexe ba dugal leen ci gouvernement bi ba nga xam ne fii fukki at ci kanam wala ñaar fukki at ci kanam añam am ay ndaw yoo xam dañu nekk ay directeur wala ñu am leneen pour euh, avenir u Bosseye mën a jóge fi mu nekk dem ci feneen parce que ñëpp xam nañ ne Matam dafa dafa dafa retard bëgg Abdoulaye Ndiaye la bëggoon naa nag ngeen ma tuuti ma wax ci loo xam ne ci mouvement de soutien yi nga xam ne ñooy am ci Fouta comme ci parce que jàpp nañ ne Fouta Tampi la boo xam ne dafa dajale woon mouvement yi nekk ci Fouta yëpp man Ablaye Ndiaye maa njëkk am passe activiste di déconné ci ni Farba Ngom yoree commune Agnam ak département bi gars yëpp ne nañ fexe ba doomi Fouta yëpp di ko def nit ñi jël benn confiance porté ko ci Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi mu yoroon kaddu waaw mouvement Fouta Tampi ci diggante bi mu changé discours changé ko euh, changé changé président bi mu njëkkee tourné Matam di dem li mu njëkk a génnee mooy lu tas mouvement Fouta Fouta yi nekkoon ci biir Fouta dañ ko échec parce que ñun dañ ko teel a yëg biñ ko yëgee ñu lancé alerte eh, conférence de presse bi ñu njëkkoon def loo ñoom Kelel Ndiaye gis nga bu sotti woon mooy booba benn mouvement bu nekk ci biir Fouta dañ leen détourné dootul am mais ñu ngi déploré waa askanu Fouta pour ñu gën a jàpp as ña fa nekk parce que li nekk mouvement Fouta Tampi nekkul ne Mathiar Sall bu arc raisonnement tam nekkul ci Moussa Baydi nekkul ci juubi Diabit bu Fouta Insoumis il faut ñu xam ne dafa am ay doomi Fuuta yoo xam ne seen ngor ak seen dignité ñu ngi ko dese ba tey Fuuta ma Faatumata Njaay def na infraction ci wàllu politique bu mu tax ñu waa Fuuta bañ a ñàkk confiance ci ndaw Fuuta yi amoon te woon kooku dafa clignoté dem dañuy continuer la combat mais dañuy continuer le combat lii laa amoon loo xam ne doon naa leen ko baaxee te jàpp ne nag dara taxuma koo wax lu dul njariñu askanu Sénégal benn président de la République ñu ngi koy nax ci lu mu xamul société yi di ko ci woon gis ngeen ci lañ avant 2019 la woon pare ba léegi parewul loolu yëpp mooy président waxuñu ko dëgg ma wax ne les renseignements généraux de région de Matam wax naa leen ko seen chef ak seen ñëpp may woo dinaa ko waxaat fii tey rapport bi génn ci Farba Ngom mooy génn ci les renseignements généraux région de Matam moo tax président mënul régler problème région de Matam parce que il est puissant am na xaalis Bougane Gueye bi muy def opération tibbi ñoo xam ne bi ñu accidenté ci cortège su président ñëw seen chef bi man maa dépanné otoom laa wax la ma ko la ma amee ci xaalis sax fayagoo kon xam nga ne am naa ak ñoom lien mais dama leen wax ne boo leen bëggee ma bàyyi leen dee leen bindal président de la république les vrais rapports yi nekk ci région de Matam ba jafe-jafe yi am ci région de Matam ngeen bañ a juumloo président de la république parce que président bu juumee ci région de Matam yéen yéen a ko juum. li Farba Ngom di wax yéen boo leen ñëwee seen rapport ànd ak loolu wu Farba kon boo leen ki nekk ci renseignements généraux bi ànd ak Farba laa wax. bi muy jógewaat Thiès ñu di ko affecté ci man la ñëw ne naa ko defal benn projet 15 pour mu dem mu topp ci ginnaaw Farba ba am loolu kooku est-ce que bu demee dina bind ay rapport yu baax dama ne man accusation su ma ko defee s'assume mes responsabilités laajal ñii ça fait un an 2018 ba léegi maa ngi wax ci honorable député dama ne ko bis bu ma waxee loo xam ne déformation la na ma indil citation directe ma dem uy ji tribunal benn benn du am parce que man xam na ne du ma fent ma wax ci dul dëgg alliance pour bu boosee maatam ñun ñoo ko tabax en 2009 ànd ak Farba di liggéey Farba il ñun ñu nekkoon ay entrepreneur kenn ku nekk di jël alalam di ko def ñu ñuy mëq ay cere di lekk ay sombi di def lépp ba tey taxawal li ñu taxawal tey mu doon benn dictateur baadoolo xamul nguur xamul nguur bu amee alal dafa yaakaar ne dem la tey Macaar bi ñu tëj bërki démb ali boo Macaar bi ñu tëj bërki démb ñu ngi formé alliance pour la république ci kër papam kër baa Demba Xame mesal kon doomu Demba Xame Sall bu fekkee wax dëgg rek a tax ñu jël ko di tëj ci kaso bi loolu dem Farba képp ku mu kuusee xal dalay lay ci biir kaso bi. Ah, non ñun ñun sol ñun slogan bi ñu jàppee Macky Sall jàppee wuñ ko problème mu ethnie xam nga Macky Sall lan lañ njëkk gëm ci moom. ah non añam añam du por euh, loo amoon na fi coow mais dañ ko buggoon a réglé fexe woon nañ ba réussir loolu.